fan yi ñu weesu bu ngeen fàttalikoo ñu ngi doon wax ci lu jëm benn sondage boo xam ni waa bitim réew dañ koo def jëmale ko ci Sénégal ci élection présidentielle yu atum 2024 yi ñuy waajal la boobu lépp sondage nag pap assan Seck daf cee daal di dikkaat nee na benn kilifa fii ci Sénégal gu mag a mag a mag boo xam ni mi ngi ci biir APR moo ko daal di wan lu ni mel sondage yooyu di wax ci lu ñeel élection présidentielle yu atum 2024 ci Ousmane Sonko bu bokkee. ak bu bokkul bu bokkee daf cee wax lu leer naññ ci lu jëm ci wàllum sondage yooyu le mooy que ne Ousmane Sonko mooy gagné élection yi waaye day rawee gars yi écart bu yaatu lool président Macky Sall sax bu fekkente ni daf cee bokk deuxième lay jël waaye teewul Ousmane Sonko ci premier tour lay gagné yooyu la élection ba noppi mu ne sondage beneen bi nga xam ne def nañ ko mooy boo xam Ousmane Sonko du ci daal di bokk keneen lay doon ku dul le président Ousmane Sonko waaye teewul Macky Sall ba tey Macky Sall dafay daal di perte yooyu la élection muy lu wóor loo xam ne waxoon nañ ci jamono yi ñu weesu ñeel président Macky Sall ak le président Ousmane Sonko ak képp koo xam ni la nga bëgg nekk candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne ci lañ daal di jëm. ku am lecture politique ak ku ko amul sax moo ci bokk yam ku xool xam ni. Ousmane Sonko actuellement moy le mieux placé pour gagner élection présidentielle yi ñu daal dëgmal moo tax moom li muy di woote wo résistance nekul lenn lu lu jëm ci walum candidature mom bu bokké rek moy carte gi jeexna match bi tasna gaay xam nañ lolu nak motax tax sarax bu nek ñing koy daal di ngi daal di galgal ki nga xam di Ousmane Sonko ba du mëna bokku ci yooyu la jongante loolu mooy li nga xam ni Pa Assane Seck dali na koy jéemal a leeral jëmale ko ci candidature Ousmane Sonko ak élection présidentielle yu atum 2024 nga xam ni ku ci nekk mi ngi génn di ci daal di addu di déclaré ab candidature am gis nañ ci Déthié Fall Abdourahmane Diouf Malick Gakou Khalifa Sall Aminata Touré Pape Djibril Fall ak ñeneen ak ñeneen ku ci mel ni ngay dan Dany bu Boubacar bu buñ leen di lim duñ fi jugee ndax sax gis nañ Mamadou Ibra Kane daal di ab candidature ba ci sa Seck mu ngi junj ne il va bientôt arriver loolu yëpp nag bu ñu ko tënkee mu lay wan ne yi ñu jëm nekk atum 2024 nekk na élection yu doy waar yoo xam ni naruto yomb waaye nag li am ba des mooy bu dee candidat yi ñu fi lim yëpp bokk nañ bu ci Ousmane Sonko bokkee mooy que ne da leen di gagné loolu amul sikki sàkk comme ni ko sondage yi daal di waaye bu ci bokkul itam teewul président Macky Sall il sera renversé nag Ken mënul imaginer fii ci Sénégal élection présidentielle boo Ousmane Sonko bokk ci loolu ne c'est impensable inimaginable loolu moom jarul sax état du Sénégal di ci jéem a dugg ndax bés bu ci duggee jafe-jafe dong jur ci ndax xam ce sont les Sénégalais qui aimeraient voir Ousmane Sonko à la tête de l'État ndax gis comportement bi ñu am ak ak gars yi fañ ko teg fonk ko ba waral fu génn élection présidentielle am fii ci Sénégal te Ousmane Sonko bokk ci nañu jël seen mbirum rapport yi ñuy wax saa su nekk mbirum diffamation ak yeneen ak yeneen di ko jéem a teg ci ndodam naan na ko génnee pour dal di mën a setal boppam ci digganteem ak Mame Mbaye Niang indi li nga xam ni moo di démocratie fair play bàyyi képp ku bëgg a bokk mu bokk ci yooyu la élection bu ko defee sénégalais yi tànnal seen bopp comme niñ ko defee woon ci atum 2012 bi ñuy jël président Macky Sall di ko remplacer ak président Abdoulaye Wade jël itam président Macky Sall wóoluwaat ko tegaat ko fi ci atum 2019 muy ñaareelu mandat kon ñetti mandat mënu fee nekk day joxe bii di ñëw keneen dal di koy jël ñu am cinquième président de la république du Sénégal te kooku le mën naa nekk le président Ousmane Sonko nguur yàlla moo koy joxe waaye ñëpp xam nañ ni sénégalais yi tànn nañ Ousmane Sonko bés bu ñu ci yeggee mu nekk candidat bokk ci jongante yi sénégale yëpp daal di voté comme ni mu ca waree amul sikki sàkk te am nañ ci yaakaar que kii di président Ousmane Sonko comme ni ko sondage yu bitim rew yi di au premier tour n'est que le cinquième président de la république du Sénégal